mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu lislaam bu tedd boobu muy jàmm ak xéewal ak yërmande suñu boroom yal na wàcc ci yéen di bëgg ñëw comme ni ñu ko baaxoo defe ak yéen ci ay bis bu ne di jàngatandoo ak yéen ci li nga xam ne moo aju ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ñu tànnoon ci te bi nga xam ne mooy nahju xadail xaaj te sëriñ bi di ci jàngale ay teggiin ñu woyal ci ay bind yu baree bari ba tey jii comme ni nga xam ne noonu noonu ko baaxoon defe rek bind buñ taxaw rekk bu ñu ñëwee foofa lañuy ñuy sofewaat ngir continuer euh, ca la nga xam ne moo ca topp ci suñu bind bi weesu ñi ngi taxawoon ci xadis bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne mi ngi dénk ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñuy dëggu ci seeni wax ak seeni jëf ngir ne dëggukat mooy yóbbu nit ki ci ak mbaax waaye mbaax googu moo koy yóbbe ba àjjana waaye it mu nuy moytandikuloo safaan ba ngir ne safaan ba ci ak mbon lay yóbbe nit ki waaye mbon googee mën na ko wommat ba yóbbe ko sawara wana yaasu billah ci xadis boobu lañu taxew woon ñi continuer rek ba tey sëriñ bi ne wa burra na baax na nga topp waalidayka sa ñaari waajur warfuq te nga ñeewente bihima jëm ci ñoom ñaar wakun te nga nekk mubaadiran di gaawe ila amrihima jëm ci seen ndigal ñoom ñaar wantahi te ngay terew an jumlatima ci mbooleem la nga xam ne xadna naxa yaaka tereyeef nan la ko anhu walif loola li rabbika ngir sa jëmi boroom fa daada kon danga dolli ko ola dana dolli ko olaaka sa kawe sëriñ bi na nanga baax jëmale ci sa ñaari way jur nanga nga topp sa ñaari way jur te nga ñeewante jëmale ci ñoom ñaar waaye nanga na ci lépp loo xam ne moom lañ la digal nga jug def ko waaye nanga na ba lépp loo xam ne moom lañ la tere nga gaaw daal di koy bàyyi waaye jëfe gi ngay jëfe liñ la diggal ak bàyyi gi ngay bàyyi liñ la tere nanga ko def ngir jëmmi yàlla rekk tax ne na de loola boo ko defee sa kawe dana dolli ko bu baax a baax a baax kon way jur dafa doon loo xam ne dafa am solo lool ci doomu aadama ba tax na doomu aadama war na koy fonk bu baax a baax a baax ndax suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo fonk ba nga xamee ne mi ngi wax ci alquran baada auzu billahi min ashaitan rajim waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsanan la ca teg nee na na nga jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala te bul ko bokkaale ak dara waaye boo defee loolu ba pare nanga rafetal jëmale ci sa ñaari wayjur ñu xam mbokk yi lislaam ni mu joxe yitte mbir yu bare bari ci ay biiram waaye ñu gis ne suñu borom bi subhanahu wa bi mu waxee ci àqam ba pare ni ko jullit bi war a taxawoo nga xam ne daf ko war a jaamu te du ko bokkaale ak dara lamu ca teg mooy na nga rafetal jëmale ci sa ñaari wayjur kon loolu ab tektal la buy wone ne ñaari way jur rafet rafete jëmali ci ñoom ak topp seeni digal di bàyyi seeni tere loolu warteef la woo xam ne nit ku ne war na koy sàmmoo bu baax a baax a baax mu ne wa kullu képp koo xam ne yakunu dana nekk ak bara di gën a mage min ka ci yow minal aqaari bi ci mbokki jege ñaale yi fakun na nga nekk mu waqira di aji wet ko wa gayrihim ak ñeneen ñoo xam ne duñu ay jege ñaale wa kun na nga nekk maa naasi ànd ak nit ñi jamii mboole seen bil xuluqil xasani ci jikko yu rafet yox bibka kon mu sop la albadiya yàlla mi nga xam ne moom moo fent euh, kaw suuf yàlla mi nga xam ne moo fent àdduna bi yàlla mi nga xam ne moom moo bind kawnu bi kon nanga nekk ak mboolem ñi nga xam ne ñooy say jege ñaale ak képp koo xam ne moo la mag nee na na nga ko wekk na nga respecté na ko wormaal waaye bul yem ci ñi nga xam ne ñooy say jege ñaale dong waaye képp koo xam ne daf la féete ak mag nee na ko wormaal moo xam nit ku mu mën doon waaye na ngay jëflante moom ci worma na ko wekk na nga ko respecté waaye na nga ko euh, jox cër bu baax a baax a baax nee na na nekk ak mbooleem mi nga xam ne ñooy mbindeef yi di jëfandikoo jikko ju rafet ci sa jëflante ak ñoom nee na loolu de boo ko defee suñu borom mi nga xam ne moo fent adduna bi te bind mbindeef yi nana dana la sopp ci jëf ju rafet jooju ngay xam ne moom ngay jëflanteel ak mbooleem nit ñi mu ne wa xassinil xuluqa na nga rafetal say jikko bit taraxu bi ci ak yaatu yaatulu wa bit tawaddudi ak ci ak sopp soppulu ilayhim jëm ca nit ña tox ba bi kon ñu kon ñu sopp la nee na na ngay fexey bay rafetal say jikko ni ngay rafetale say jikko mooy na nga fexey ba doon nit ku yaatu bu fekkee ne yaatuwu tamit yoroo jikko ju mel noonu na ngay bay wut jikko jooju di yaatu yaatulu ngir euh, bëgg gi koy bëgg ak mébét gi koy mébét suñu borom mën na laa jàppale ba nga am ko waaye it ne na nekk nit koo xam ne ku sopp-sopp lu nga jëm ci nit ñi ne na loolu de boo ko defee nit ñi dinañ la sopp maanaam di bëgg-bëggul nit ñi di def ak cofeel goo xam ne di def doxal sa diggante ak cofeel sa diggante ak mbindeef yi dana loolu boo ko defee mbindeef yi danañ la sopp ngir jëflante bu rafet boobu nga xam ne moom ngay jëflante ak ñoom mu ne wala yi ni na nga nooyal alxawla wax ja li kulli naasi ñeel bépp nit fa innahu naka nooyal ay wax de min chiyamil ak yaasi bokk na ci jikkooy way ñaw ya jikkooy ñi nga xam ne dañoo am xel jikkooy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen xel dana kon mu ngi lay dénk ngay nooyal say say wax bu baax a baax a baax fexeyal ba boo amee koy waxanteel nga fexey di nooyal say wax waaye bul di dëgëral ngir nooyal wax ja ngay nooyal wax ja ne na loolu dafa bokk ci jikkooy ñi nga xam ne ñooy euh, ñi nga xam ne ñooy boroom xel yi kon fexeyal ba bul waxante ak nit di eh, yëkkati sa dënn walla ngay mer wala ngay tàng tàng ab xol waaye fexeyal ba eh, booy wax nga nooyal say wax ngir ne nooyal gi ngay nooyal say wax ci la jàmm di juddoo waaye it nooyal ngay nooyal say wax ca ngeen di eh, waxtaane ba mën a am ab solution boo xam ne lépp lu ngeen bëgg a def man ngeen caa jaare def ko kon li nga xam ne mooy naqara deret ak yëkkati ab dënn ak gaaw a mer euh, fajul dara kon nit ki war nay fexey ba di nooyal ay waxam waaye war nay fexey ba euh, bañ a bañ a ba wala boog muy bañ di gaaw a mer ngir yonente bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ci ne laysa sadiidu bi suraatin innama sadiidu man yamliku nafsahu inda al ghadabi nee na jàmbaar dëgg de nekkut ci saa boo meree di gaaw di jug di dóorante wala ngay xuloo wala ngay xastante wala ngay xeex waaye jàmbaar dëgg mooy koo xam ne saabu bu meree mën a téye kon nit ki ak lu mën a xew ak lu mën a am na fexey ba buy wax ak nit wala muy jëflante ak moom nay noyal kàddoom bu baax a baax euh, ak lu mu mer mer ak lu mu jàpp-jàpp ngir loola ci la jàmm di juddoo te jàmm ci la lépp xaj mu ne fa axbaru xibaar nan anzil fadli jële ca boroom gëneel ya bi anna nisfal aqli naka xaajub am xel tawaddudun mooy sopp sopplu linnaasi jëm ca nit ña ne na ki nga xam ne mooy boroom gëneel yi de xibaar na ne euh, li nga xam ne mooy xaaju am xel mooy sopp soppulu jëm ca nit ña am xel bu tegee nii ñu ne dañ koy xaaj buñ xaajee xel mi benn xaaj ba mooy sopp soppulu jëm ca nit ña kon beneen xaaj ba ca la leneen lay xaaj waaye nee na sopp soppulu jëm ci nit ñi daal bëgg bëgg euh, di euh, amuk cofeel jëm ci nit ñi nee na loolu daal dëgg-dëgg mooy xaajum xel kon nga gis loolu ni mu amee solo ngir ni nit koo sopp sopp lu jëm ci moom moom tamit dana sopp sopp lu jëm ci yow bu ko defee ak euh, soppante dox seen diggante euh, euh, saytaane mana daw seen diggante lu bëree bëree bëri ngeen man koy wëyal te jafe-jafe du ci am wa min saadatil fata bokk na ci texe kem si xay su xasat fuñ fi jubloo allah yaruddahu ñu bañ koo delloo fu aadu si rasadi xoli borom jub ya nit ku texe de ni ñu koy xam maanaam cem si nga xam ne dafa texe de mooy cem si nga xam ne saa bu boroomu baax saa bu jubloo boroomu njub euh, maanaam du ko dummóoyu waaye da koy yàkkamti mu ñëw ci moom ngir lan ngir jikko yu baax yi nga xam ne moom lay jëfandikoo waaye ngir ragal yàlla gi ne ci moom waaye ngir sopp gi nga xam ne moom la sopp nit ñi waaye ngir yaatu gi nga xam ne moom la yaatu kon jikko yu baax day tax nit ki fu mu jublu ñu tijjil ko ak lu mu fa lu fa man di am danañ ko accueillir waaye danañ ko bàyyi xel bu baax a baax te loolu lépp jikko yu baax rek moom moo ko mën a may euh, doomu aadama bi dana yaani li mu jublu annahu naka moom ya muru ko dina la digal bi birri waalidayka ci topp sa ñaari waajur wa an tarfuqa ak ngay ñewante bihima ci ñoom ñaar wa an tubaadira ak ngay gaawe ila amrihima jëm ci seen digal ñoom ñaar wa an tantahiya ak ci ngay terewu amma ci lépp la nga xam ne naxa yaaka tere nan la ko wal anhu walif loola nee na li mu jublu ci loolu mooy dana la digal ngay topp sa ñaari jur waaye ngay sopp ngay euh, ñewante jëmale ci ñoom ñaar waaye it ngay fexey ba lépp loo xam ne digal nañ la ko nga gaaw def ko waaye lépp loo xam ne tere nañ la ko nga bàyyi ko te mi yàlla rek tax mu ne faxad xaala wax na allahu yàlla taala kawe na wa na dénk nanu al insaana nit xusnan muy rafetal bi walidayhi jëmale ci ñaari way juróom suñu borom bi subhaanahu wa taala moo wax ci alquran ne dénk nit muy rafetal jëmale ci ñaari way juróom euh, ci mboolem fànn yépp ci kem lu mu man ngir loolu ak jaamu yàlla la koo xam ne suñu borom moo ko digle kon nit ki war na ko bàyyi xel fu mu tollu eh, di ko def ila xayrika eh, ila xayrika niki eh, lu dut loolu zalika niki noonu minal ay ci ay aaya kon aaya bii la wax waaye nee na am na yeneen aaya yoo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko wax di ci dénk nit ki muy topp yàlla muy topp yàlla waaye muy euh, topp li nga xam ne mooy ñaari way juróom euh, ci digal yi nga xam ne moom lañ moom lañ koy digal wala liñ koy tere te lépp dëppoo ak loo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa laa def ko gërëm mu ne wa anta burra ak ngay baax euh, wala ngay topp man ka nga xam ne huwa dana nekk akbaru di gën a mege min aqaaribika ci say mbokk wa xayrihim ak ñoo xam ne duñu say mbokk duñu say jege ñaare wa toxsina te ngay rafetal alxuluqa jikko ja wa turaxiba ak ngay yaatu bihim ca mbindeef ya ca nit ña nee na na nga fexey ba di topp ñi nga xam ne ñoom tamit ñoo la ak mag ci ñi nga xam ne ñooy say mbokki jege ñaale ak ñeneen ñoo xam ne duñu say mbokki jege ñaale waaye dañ lay digal lu baax di la tere euh, lu bon na ne ne na fexey bay rafetal say jikko di yaatu yaatulu ci nit ñi waaye di fexey di sop soppulu nit ñi ngir loolu boo ko defee ci ngay mën a nit ñi wata waddada te ngay sopp soppulu ilayhim jëm ca nit ña wata xabbaba te ngay sop euh, fa inna tawadduda naka sopp soppulu ila naasi jëm ci nit ñi nisfal aqli mooy xaajum xel nee na na ngay fexey ba di sopp soppul nit ñi di leen bëgg-bëgglu ndax sopp sopplu gi nga leen di sopp sopplu ak bëgg bëggulu gi nga leen di bëgg bëggulu nee na loolu de moo di xaaj am xel te ci loolu ci la nit ñi di walbatikoo ñoom it di la sopp sopplu di la bëgg bëggulu bu ko defee seeni xol daje ngeen bëggante soppante di jariñante te yàlla rekk tax mu ne wamin saadatil mar i bokk na ci texe kem si bokk na ci euh, am jàmmi cem si an laa mu bañ koo delloo xal bu muminin xolub aji gëm wa antulina ak muy nooyal alxawla wax ja li jamii naas yi njeel mboorem mbindee fi fa innahu naka loolu min ak akiyaasi bokk na ci jikkooy way ñaw ya ne na bokk na ci texeek cem si day bokk na ci texe texeek euh, nit ki maanaam su jubloo xolub euh, aji gëm mu bañ koo delloo maanaam mu bañ koo mooyu ngir lan ngir jikko yu baax yu muy gis ci moom waaye ngir yaatu bu muy gis ci moom ngir sopp soppulu boo xam ne dana ko soppulu ñun gi muy gis ci moom looloo tax su jubloo ab jullit mooy ku gëm yàlla dëgg-dëgg gëm walla mu jublu mu baax wala mu jublu boroomi euh, taw bu boobaa dana ko mën a accueillir waaye du ko du ko delloo dina ko mën a yaatal bu baax a baax a baax nena tamit na ngay fexey bay nooyal say wax saa boo demee bay waxtaan ak nit ñi ngir ne dafa bokk ci jikkooy ñi nga xam ne ñooy aji xellu ñi maanaam ñi nga xam ne dañoo am am xel mooy ñuy nooyal seeni wax bu baax a baax jëmale ci nit ñi ngir ne nooyal boobu ngay nooyal say wax jëmale ci nit ñi lool moo mën a jur jàmm sa diggante ak nit ñi waaye di yëkkati ab xol foo toll wala ngay xuloo foo toll wala ngay mer foo toll loolu taxut euh, euh, ajo faju kon nit ki war nay fexe ba yaatal ab xolam di fexe di jëflante ak nit ñi ci jëflante bu rafet waaye di yaatu jëmale ci nit ñi waaye di sopp soppul nit ñi ngir ñu man koo sopp su ko defee dund gu euh, barkeel ak dund gu am jàmm rek moom la nit ñi di dund kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ne in uridu ila al islaha ma stata'tu ma tawfiq illa billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wa samaawaati ala sahabati wa saadati kullihim رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey